tout aussi compétent et tout waaye tamit fexe ba li nga xam ne tamit wàllum njàmbaarte war ngeen koo mën a am ndax décret moo leen fi teg kon tamit li nga xam ne moom leen dénk li nga xam ne mooy seen i attribution mën ngeen koo fexe waaye garantiir wàllum succès ci li nga xam ne moom leen dénk kon li nga xam ne tamit ci li war a sukkandiku muy wàllum disponibilité muy benn loolu daal mooy ngeen ci xar seen tànk tubéy waaye tamit lëkkaloo gi ci ñi ngeen di xam ne ñoo ngeen di liggéeyal ndax xibaar yi nga xam ne am ngeen ko war ngeen koo gën a mën a weccante seen nattangoo ngir mën a baax waaye war ngeen mën a assumer ak wàllum njàmbarte beneen pilier bi nga xam ne am na solo mooy wàllum oyofte ngeen gën a nekk wàllum humilité mooy état d'esprit bu nga xam ne ci loolee kat warnu leen koo bedd benn yoon tax loolu mooy fexe ba liggéey mën na nekk liggéey bu discret waaye tamit def résultat te loolu mooy fexe yi tamit esprit d'équipe ngeen mën koo am ci wàllum solidarité ak ci gouvernement bii nga xam ne ca ngeen bokk waaye lépp ngeen ci euh, sukkandiku ànd ceeg ilimaanu jëwriñ ji beneen bii tamit mooy wàllum compétence. dernier pilier.